want. Sen Sen, Rumi Venkat TV. jëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante rek yéen ñu koy topp ci site internet bi di réew mi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi dañu koy do rek bi di di rek sàkku ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ministre yi ak directeur généraux yi ginnaaw rek bi mu fësalee nag ab communiqué boo xamante ne rek ma ngay daal di circuler ngir nag ñu daal di indi ay leeral ci dépense yi nga xamante ne rek état daal dina koy def ci cadre politique rationalisation li nga xamante ne rek moom moo ñeel moom moo ñeel lii état bu Sénégal eh, ci résultat yi nga xamante ne rek daal dinay am nag ñu daal di ko ci indi ay leeral ci nu mu gën a gaawee ne nañ nag nañ ko def laata premier juillet 2024 eh, mu nekk document boo xamante ne rek boobu li xibaar nag eh, jamono ji nag ma ngay daal di circuler rek ci l' ensemble département ak agence détachée yi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk ci ministère yi ginnaaw nag mbir mu nu mel nee na nag lépp luy contrat ak convention yoo xamante ne rek jot nañ ko signé ak cabinet bi comptable ak lépp loo xamante ne rek dañ koo daal di inventé mu ñeel nag recrutement personnel yi ci ñett eh, at yi passé yëpp maanaam ci 2022 jàpp 2023 ba 2024 moo xam muy CDI ak CDD lépp rek nañ ko defal inventaire contrat prestataire yi yi ci mbir mu nu mel nag dina daal ma ngay sàkku rek ñu daal di engagé wu nag ci yëf rek jusqu'à nouvel ordre mu nekk version numérique boo xamante ne rek daal di nañu koy fësal ci ab document boo xamante ne rek envoyé nañ ko ba adressé ko nag ci li nga xamante ne rek moom mooy ci arobase ci ki nga xamante ne moom mooy Virani Sarr virani point sar arobase primature mu nekk nag mbir moo xamante ne rek ñeel njëg gi ak ñaata la ñu dépensé rek euh, ci diir bi nga xamante ne rek la ñuy daal di liggéeyee mu nekk mbir moo xamante ne rek kii di Ousmane Sonko nag daal di nag koy fësal ñu fàttali leen kii di Ousmane Sonko nag ma ngay laaj xam rek ñaata contrat lañu jot am ci diirub ñett at yi jàll foofa ca direction yi ak agence yi mbir mu nu mel nag mel na ne rek dina commencé day waar bu baax a baax du ñàkk rek ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fa abonné bés cloche de notification yi ngi dara bañ leen raw